ci invité de la rédaction tey jii nag ñu fas yéene ànd ak euh, docteur Sylla nekk responsable politique APR boo xam ne ràññee nañ ko lool docteur ginnaaw bi ñu la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci 24 actu euh, ndax mën nañu xam aussi tamit activités yi nga xam ne yéen a ngi koy amal nga dellu siwaat waaw ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ah, di leen sant ndax ñoo ànd ñu def tournée ba ngeen egg fii wax dëgg yàlla ñun zone 2 bi ñu far nga xam ne ñun man ak ak soxna Fatou Bintou Pouy ak ak Lat Diop ak Amadou Fall Naydé ak Alla Ndiaye ñoo magal xale yi ndax ñun daanaka sax xaw ñu jeexal waaye nag xale yi ñu formé taatagal leen ta di leen jàppale dañ la bëgg gunge ba le 24 incha allah ñu gagné au premier tour Macky Sall génn premier tour. ak minimum 60 ou 70 pour cent. voilà ñu nekk ni Abdou Karim ndax mën nañoo xam lan moo waral lëngoo gi ak soxna Faat Bintou Pouy. waaw li ko waral mooy soxna si moom moom sëñ Fallou ñu ko andil rek ndax soxna sëñ sëñ sëñ bi la di ko baax. moom daanaka politique mais dafa nekk femme de développement la dafay dimbale jigéen ñi yàgg na ci loolu intellectuel la wax dëgg yàlla ñu ngi sant sëriñ bi ndax bu ñu bu ko bu ko sëñ bi bàyyee mu diñ jàppale loolu wax dëgg yàlla Mbàkke ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddalu fanam ba nga xam ne bii li mu bëgg lépp ci sëñ Fallou dana ko am incha allah ndax ndaw si moom li tax mu baax dafay dafay dimbale askan wi te nag intellectuel la moom it nag responsable bi cadre la woon nekk dakaar sëñ bi indi ko fii mu nekk ci kër gi. ah comme que day développé nag te ñun ñu yore ay femmes di politique te ñu soxla ay financement soxla ku ñu jàppale ah ñu dikk waxtaan ceeg moom mu nangul ñu ko jàppale ñu moom loolu moo ko ci dugal waaye moom daanaka sax du politique mais nag comme amal nañu njëriñ ndax nun ñi politique jigéen dañuy laaj seen i soxla te moom am na ndimbal sëñ Tuubaa dimbal na ko ak sëñ sëñ Abdou Karim ah ñu lang ci moom moom it mu jàppale ñu duñu ñu dimbale ci suñu jigéen yi mhm, boobu léegi ñooy ànd ci euh, li nga xam ne mooy euh, caravane bi mais dañu seetlu ne fu ñu dem askan bi dañ leen di tatagal ndax euh, da ngeen a préparé bi avant wala ah terrain bi dañ ko préparé avant mhm. man depuis depuis au moins six ans huit ans mhm. maa ngi terrain bi man daanaka quatorze quartiers périphériques ci Touba yóbbu naa fa ndox man damay may itam dafay di social damay defar damay yóbbu ay lamp di jaxasoo jigéen ñi di leen wutal ay kees di leen dimbale. moo tax moo tax duo bi xaw a neex ndax soxna si li muy def laay def ñu jàppale nag fekk ñoom ay cadre technique yoo xam ni sëñ Abdoulaat Abdoulaat mu ngi nii léegi moom moom moom URD la bokk parti allié la. Abdoulaye Diop la tudd moom jarbaatu sëñ Sidi Moxtaar la yàlla na yàlla yokk leeram mu ngi denc doomam muy cadre intellectuel jàng université la génne ñu mboole ko ci ñun boole ci Amadou Fall nay de ñu former une équipe boo xam ne bii vraiment nous sommes des des vieux expérimentés alors ñu encadré na xale yi xale yi dugg terrain bi. ay vieux routiers quoi. voilà <laughs> comme ni nga koy faral gis ne aussi tamit dafa am euh, dafa am stratégie bu nga xam ne jël ngeen ko par rapport ak euh, wuute ak ñi nga xam ne ñooy yenn responsable muy da ngeen demandoo ci ay zones euh, yu bëri à la fois quoi. waaw parce que dañoo dañoo bari kaar xam nga ñun dañu gérer fii ba Touba Bogo gérer ba Mayel gérer ba Kéré Ndaw Kéré Mbay c'est une zone boo xam dafa rëy bu ko defee nag bu fekkente nañu def par benn café wala benn visite du mat parce que ñun lu mu néew néew am nañ lu mat ay ay quatre-vingts à quatre-vingt-dix sites kooku nag il faut que ci vingt il faut ngay bàqale léeg-léeg nga def ñaar ñett ñeent léeg-léeg ñu dem def ay visite de proximité sinon du ñu motal parce que politique moo mel noonu am na ñaan boo ca demul rek dañuy frustré. Mhm. il faut nga dem ci sargal leen. taatagal leen fexe ba ñu ba ñu am confiance. Mhm. voilà euh, ñu gis ne président Macky Sall nag fii ci Touba daf koy faral di ñàkk lan nga jàpp ne moo ko waral ak ren ji ndax am ngeen ci yaakaar ne mu gagné Touba. waaw li ñuy man de man sama expérience boobu parce que am naa fi 35 ans fii laa liggéey ba retraité am fi sama kër ma am sama clinique di faj yàgg naa Touba mais man ci li ma gis ak sama sama yàggaay ci dëkk bi euh, euh, président ab dafa am ñaan rek man li ma la ci leer la. ñëw na ci Serigne Saliou Serigne Saliou ni ko ah man de mënu ma laa jox nga gagné waaye mën naa fexe ba nit ñi ah, xoolul nit ñi nga nekk ci. xam nga ko seetloo président Abdoulaye Wade léeg-léeg da nga koy bañ sax da ngay coow sax mais il faut nga bëgg ko même ñun ñii ànd ak moom di ay apéris koo rek mun la góor gi nanu sarax góor gi nan dimbale sunu baay la sunu maam la moom yàlla def loolu ñaanu sëñ Saliou moo ko jàpp kenn mun ci moom dara. mais ndax Touba gi amu leen fi tiit parce que Idriss Seck dafa mel ni coalition bi mi ngi gën di yokk ñi nga xam ne ñoo toll ci ginnaawam ak. Euh, Idi daal moom. non Idi duñ di dem daje na ñoom léegi léegi fii. <laughs> gis nga li tax Touba Touba Touba am sens. xam nga ni ñaa ngi daje di xeex ak xuloo man léegi lañ daje cortège cortège Idriss Seck seen seen coordinateur bi du jóg sama kër papa la may wax boo amee soxla dama koy jàppale sama xarit la loolu loolu mooy Sénégal dañu war dañu war def même bu ñuy bu ñuy xëccoo présidentiel ñun war nañ bu ñu dajee ñu waxtaan te teewul bu bis baax na ko ne def li nga war a def rek. gis nga caravane bi ñu ma doon nuyu di ma jox naa ma jox ñu essence nangam nangam noonu la ñeneen ñi war a def waaye di xeex di reyante ak dégg li xew ay Tamba yooyu yooyu maa reetal ñun yooyu ñaanu ñaanuñu yàlla mu xew fi. dañuy bokk ndey non duñ ko def boo gisoon sànq bu ngeen dab bu ngeen leen daboon yéen journalistes yi dañu taxaw di ma draye naa ma tonton eh baa jox ñu essence eh samay xarit lañ samay doom lañu mm-hmm. mais loolu mooy loolu mooy yoon xuloo bi ma nga ca urne rek ñu demee nag bu ñu ko ko gagné ñu xam ne moo gagné ñi ci des ñu àndaat xam ne ñun waa Kër Sëñ Touba lañu dañoo war a bon mm. sama mot de la fin mooy daal ñu ngi ñaan yàlla ci barke Sëriñ Touba parce que suñu suñu candidat moom ñu leer na ne Sëñ tubaa ñaanal na ko sëñ sëñ sëñ Mountakha ñaanal na ko li ci des nag mooy ñu góorgóorlu dugg terrain bi naxanteeg nit ñi nga xam ne amoon ak ñoom jàmm ñu fexe bañ woteel ko mu gagné au moins mu gagné Touba. voilà voilà ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon euh, docteur Sylla nekk euh, invité de la rédaction ñu nekkoon tey fii ci kër sëñ Abdou Karim Mbacke ñu ngi leen di jox euh, dig daje seexu naa moo nekk ci caméra bi di leen dox dig daje incha allah ci yeneenu jotaay jërë ngeen jëf.